Before I learn, I just want to take few words to congratulate and thank some of those who were with us mu ne dafa bugg a tam xaasal kàddu ngërmaande ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci campagne bi ren. Let me start with my cabinet colleagues from the vice president across all the ministers. They were all very supportive to this campaign. mu ne moom naataangoo bi nekk ci cabinet lu ko dalee si vice président ak ministres yëpp. ñoom ñëpp kenn delloo doon loxoom ak tànkam ci campagne bi. and I remember all of them calling me at different time asking me finding about what was happening in Niamey that area Concern, they wanted this victory all the cabinet colleagues for that. mu ne ci wàllu yëpp ak bu nga xam ni xew foofu ak bu nga ndam am foofu. ñoom ñëpp ñoo ko doon moo ci téléphone di ko laaj lan mooy xew ci ñoom. I I therefore want to reiterate my position. mu ne dafa bëggoon dégëralaatal taxawaayam. if you want to continue to be a minister you must be a politician. mu ne képp koo xam ne da nga bëggoon a continuer nekk ministre faw nga doon politicien. this victory is brought by the politician without this victory we would not have been here today every cabinet minister must be ready to be on the campaign trail. mu ne ndam bii ñi nga xam ne moom la ñu dégalee tey ñi ko indi mooy politicien yi gannaaw ndimbal yàlla. mu ne kon képp koo xam ne ministre la foog nga fas yéene pour. pour ñu war a mu ne su fi président Barrow nekkul ñoom ñëpp du kenn du fi nekk si ñoom. therefore there is nothing like technocrat minister there is nothing like any other minister all ministers are political office that you have very great responsibilities and they must all be ready to serve your government. mu amul technocrate ministre ministre daal ministre rek la te ministre bu nekk ci wàllum politique la jëlee kon ministre si ay politiciens lañ.